min asraari Seydi Mouhamadou Mountakha yaakaar naa barke feeñ na si it boo xam ne ni muy dañ ko jëriñoo ngir barakaati moo Cheikh Mouhamadou Mountakha yaakaar naa ne magribatu billaahi dana ci bànnee ci barke Seydi ci xol jaam yi teg voilà gudd ko. addi Mountakha nag bu ko joxul fii moom garanti mu mënal dara. lépp ku ko joxe nag sa soxla maa baara bu fa ñu laaj ma ndax bu ñu laajee suñu mun na am xàddiyee joxewoo ki ko joxu ñàkk jox xañoo ko ko suñu mun na moo la jarul ndax moom lañ koy laajal ndax laaju suñu bàcc nañu laaj loolu moo moo ci nekk mu mel ni suñ ko xamee loolu fii sax bépp ndax kàddu yu jiit rek taxaw leen waaye mënuñu ñàkk wax te li ñuy wax ñu koy wax si li di wujjul sallallahu alayhi wa sallam ku déglu wax ji seetantal da nga xam ne li ñuy wax xam-xam la du raasaatu du korompu xam-xam ko waxee fi ñu koy terminer mooy ci ma neexee ma ne mooy imaamul awliya te du ma ci bu ma neexee ma ne mooy imaamul aqtaab te bàkkaar bu wat waaw ci kanam munkir ki ko weddi ak kanam muxtaqi ki fas loolu su ma neexee wax las dafa am lu xew ñu bëgg ko leer ñaati yonent la yàlla bind muy cent vingt quatre mille anbiya téeméer junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent loolu yàlla bind waaye nag ñëpp ñu ngi ci alquran minhum man qasas naa alay kat wa minhum man lam naqsus alay kat mais am nañu fi ñëw na cent vingt yooyu bi leen yàlla bindee ba pare dafa tànn naa trois cent treize mu ñetti téeméer ak fukk ak ñett boo demee si yeneen riwaay yi dañ ne ñetti téeméer ak fukk ak ñeent waaye lu tax ak ixtilaaf neex ma lil umma waaye comme que fekke ko ñett li bi mën na uti mais lépp day dellu ci xam bi mu tànnee ñetti téeméeri yonent yooyu ak fukki yonent yooyu ak ñett def leen ñuy nëb yu mursal nëb yu mursal yooyu kan moo ci gën muy Sidina Muhammad kenn du moom deful lu mu gënee nit ñi yàlla moo bind ñëpp ne sama jaab bi moo ma gën a mais du jëf du waxee boo demee si alquran ci suratul ahzab yàlla fay wax ne وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا قليزا لتح ليسأل الله زادقين عن صدقه أغلى jërëjëf El Hadj Mamour an sidqihim wa ahada lil kaafirina asaban alima juróomi yonent yi ñooy uuli la asmi mais dafa am ku ci gën mooy kat Seydina Muhammad waaye mën na kenn du moom lépp lu la réer si yonent bi bu ko laaj kenn ku laaj wala ndax da koo xam maîtriser léppam nag ndax taaxam ak waxtum yi ak ërëm yi ak fanam yi ak semenam yi ak weeram yi ak xatam yëpp mu ko def si wujj juróom ñii ñooy ulul azmi kan moo ci gën Muhammad am na ku ci topp mais niñ toppantee tartib bi ñëwul ci aay bi waaye boo demee ci benn woykat mi ngi wax wa abdalu xalqi jamihan ahmadu salla alayhi laahu nirma sayidu ki gën ci mbindeef yi mooy ahmad borom bu garaaw waa ngi noonu nag ahmad salaxal ilaaw neex ma saydu gannaaw Muhammad ku gën wa baxdahu qadiilu mooy Ibrahima mooy xaritu yàlla ba ndax wa taqaza laaw Ibrahima xalila gannaaw Ibrahima ku gën fa mu kalam moo yónnati yàlla moo sax ndax moo wax ak yàlla sa tuuri Siina ku ci topp fa nuuhun toppul yónnati yàlla naa ku ci topp pour ruuxu topp yonent yàlla Iisaa ñii ulul azmi hum ñii ñooy ulul azmi cinq cinq yonent yi cinq yonent yi li ñuy baax baax baax ki ci gën mooy naa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gën ndax yonent bi wax na ko ana sayyidul awwalina wal axirina wala faqra man maay sang ñi njëkk ñi may sang ñu mujj ñi te puugare taxul ma wax lu yàlla def mu waxaat ne ana akramul akramina wala ana akramu awwalina wal axirina wala faqar ñu njëkk ñi maa leen gën a tedd ñu mujj ñi maa leen gën a tedd te ndangu taxul ma wax lu ma yàlla defal ndax wa ama bi ni'mati rabbika fa hadis mais lu lu lu lu yéeme ngay xool fii boo demee ci ibnu bi mu ngi koy wax

mooy bu ko indi dalay wax tartib bi dalay wax ki gën ki ci topp ki ci topp nga xam ko mu ni la faa bi nga naan te xam ko boo jàngee naw bi jàngu naw doo xam su fekkoon dafa indi suma du nekk tartib moo tax Ibnu Maalik moo tax mu ne wa bëx doxoo xaliilu fël mu kallamu fon noo xam ko كونوا عزمي هم ني اولا عزمي لول واخو برام خام خام واي نك داماي ديكي سي واخو الله يخوان برام خام خام لا رون واخ سين واخ ما ديكي سي واخو مولانا شيخ سيد الله يمر ميغا خام نه باني ري ري مر مر مر مر مو جتا سيو سالوم داني ريرو مر نك سي فوسو ماتي فهم لا يسرون lëndëm boo xam ne boo taalee sa baaraam sax doo ko gis alaay xamat na ñëw xett li la leeral leen nañ mais ay cedd rek fi ñëw mosuñoo xam nit yàlla sëñ Omar Ndaw nifoom ëpp na nifoy taalibeem yëpp mais ku si ne wàcc na boppam ba tolloog yow defar la bala waaye bu leen wanoon dem du leen defar moo tax daan na wax ne ni ma mel ci yéen mu ngi mel ni gëlëm ni mu mel si biiri jur boo gisee gétt ak fa leen gis gëlëm seen biir da ko xàmmee de noonu la mel na ci taalibe moo tax du morom de kuy wuti morom wut ko du alaay ma ndaw alaay ma ndaw morom kuy wuti morom wut ko pour di jéem a moromanteeg alaay ndaw wala ngay tëkkalanteeg sa kóob ak alaay ndaw alaay xuma ndaw kenn rek na ko taalibe yi xam dama bëgg taalibe yi xam li ñu am mooy lan ñu bañ ko sàggale xam ne li ñu am xaadu ne bi tout kenn amul ko gën sëñ Omar Ndao moo ne yonent bi afdalu xalqi alal humoomi wa itlaaqi min kulli wajhin wa min kulli ixtibaarin بمغد اختيار الله بلا شقاق صاحب المقام المغمود واللواء مخقود في بخصة تامة ودخوة هامة نازق لجميع الأديان بإذن ملك الديان دي لا لا يا بندوق إنه nee na yonent bi moo gën ñëpp xalal xomoomi ana ku génn yëkkati sa loxo wa illaaqi moo gën ñëpp tënkuñ ko ci fenn léegi la ne diw baax na waaye diw ko gën loolu doo ko dégg si yonent mit ko di wàññi koo mën a gis si bépp xanam wa min kulli ixtibaari yow liy toqal sa xel mi nga koy xalaat ci nit ci mbaax ci yiw yonent bi moo ko gën waaw loolu nag yonent bi wax naa la deful ko ci jaamu yàllam def ko ci laskaar bil mahdi ixtiyaari laay bilaa siqaaqi yàlla moo ko defal ci coob rek loolu amul uti hmm? boo gàmmee nag ñu xam ne kenn gàmmu yonent bi saahibul maqaama mooy borom maqaama mi lakal maqaamaatu hmm. yaa mahmuudu saadiqatan fi jumlatil xaali min boxdi wa min amal kooku mooy saahibul maqaamaat ak lakkal maqaamaatu yaa mahmuudu faaiqa faqal akaabiri min rusli wa min karami kooku mooy saahibul maqaamaat al mahmuud maqaam yi ñu sant te gërëm ko ki ko yore mooy Sidi Diop wala waa al max ko drapeau nga xam ne dañ koo fas nga xam ne moo koy téye yoomal xiyaam kenn du ko yore keroog yoomal xiyaam ku mu jëlante loolu wax na ko lakkal liwaawu waqan maddat sawaariquhu alwitul qurri waxta zaxmi wa sadami bi ñëpp di tiit ñëpp di jàq ñëpp di ragal ñëpp di jaaxle kii téye drapo bu càllal ne ci kaw leer ga ca ne di yeneen drapeau yonent ay leer kii téye drapeau boobu mooy Sidina Muhammad waaye xamut fa nag si biir taama si ñëpp lañ ko yónni ndax wa ma arsalnaaka ilaa kaafatan dinaas wa daxwatin haama ootem bi dafa daj yonent bi ku ma xawut oona nit oona jinne oona malaaka naasiqun di jamil adyaani bi isni maliki dayaani diine jin fi indi moo foole diine yëpp diine xeesa walaabulu diine Moussa walaabulu diine noonu walaabulu diine Ibrahima walaabulu benn diine moom rek fi des moo walaabal ku ci ne yaa ngi ci diine ku ci ne newu ci ñëw ci ku ci ne newoo ci diina mooy diina si dinaa Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye nag tool yi li muy bëri bëri bëri bëri ndeketoo xaw mun a tey la kasu xaw moon ko mu mel ni guddi gi dama ne la sirru min asraar mbóol la ci biir mbóot yi alaay xaman ndaw boo bëgg xam kasu rajab laaj ko alaay xaman ndaw moo xam kasu kenn rek lañ ciy màggal muy siidi wujjot keneen kurut siidi wujjot amooy daraja ñu lay màggal si kasu rajab ah. bi moo ci génnoon màggatal mu karama ah waaw ah moo ci ci la génnoon màkkatal mu karama dem baytul maqdis ci ñaar fukki fan yi ak juróom mooy sakk li mu sakk mooy subhaana li ci asraa bi xam di leylan min al masjid al haram ila al masjid aqsa loolu guddi gii la woon moo tax ki baax baatin kese la làmb boo wax la sa maam dafa garaaw ndax rañaan ak Sayyidina Muhammad jee ko màkkatal mukarrama mm. dem baytul maqdis si benn guddi mm. loo xam ne kenn xamul ñaata kilomètre la mm. ndax Madinatu Munawwara ak Màkka cinq cent kilomètre la mm-hmm. te baytul maqdis ak Màkka moo gën a sori diggante Màkka Madinatu Munawwara mm-hmm. loolu nit def def ko benn guddi ñëw te set teemut fa dafa yéeg asamaan yu juróom-ñaar wàccaat loolu lu ko waral baat la moo tax alaay moo bi ñuy leeral loolu dafa jël beneen tur yàlla bu ñuy wax baati Hah. leeral ko ci Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. ko Hah. dem baytul Hah. Hah. muqaddas mooy Iliya yàlla dara tërëtëriwul ko pour dekkal anbiyaaw yëpp dekkal musulin yëpp yonent bi taxaw nekk si imaam ñu taxaw nekk ci gannaaw yonent bi jiit la ñaar ràkk ñu ne jiite ñaar ràkk ba sëlmal ci la soog a jëglu nag dem asamaan yi juróom-ñaar loolu mooy ak xam te ruus la arwaaw xaatibatan bi habibika kooku lay lut isaan am biñ taxee ci gannaaw lu xew fakkamara wucc tam jii den yu jaawi boo ëjaaru xalq xam nga jawaab mooy lan jawaab mooy nga laaj nit mu tontu la mais lu tax mu tuddee ko jawaab fii mu ngi mel ni imaam bu taxaw fii jur bu ne allahu akbar yow imaamam bi dangay wax allahu mooy mu ngi mel ni li mu wax nga ko tontu loolu tax laa laay ma doon indi baatu ñu jaayu ko yonent bi dafa kabar yeneen yonent yi leen ñaari rakk kooku mooy guddi gi la jublu asamaani juróom-ñaar mooy wa bax da an zalama moom saaru safatina naa saaban sarwaati la jublu asamaani juróom-ñaar wa juutu samaawaati ilaa xas malikin wa nita maqaamaat ah laa raja li baa di bu jigéen si la jëm asamaan juróom-ñaar cëpp yéegee benn kerkeraan mooy escalier boo xam ne bi ko yonent bi tegee juróom-ñaari escalier moo nekk si kerkeraan bi juróom-ñaari pee la jëm escalier bu mu yéeg xegg ci benn pee bi juróom-ñaari yee pare xeggee mu yegg ci fam jëm waaye man doo ko wax woo justu samawaati ilaa arsi malik juróom-ñaari pays xaraf leen bi nga demee foofu nag wan nit la maqaaman laa rajaali kooku guddi gii la kon dafa am secret guddi gii si la ñuy jox salawaatu xam si yi nga xam ne moom la ñuy liggéey di ci yaakaar ëllëg yoomal xiyam pay suñu borom kon bu daajalee daar rahman dama ne sirrun ah sirrun min asa nag bi mu demee asamaan lu fa xew moom alaahi wa wax la ko li ixlaa rëbbi tasliman li qurwatina waxta tajaawus asamaan bu njëkk bi ñu koy jéggi malaaka yëpp a ngi sàtt asamaan ñaareel malaaka ngi sàpp di ko xar ngi sàpp di ko xar asamaan ñeenteel malaaka ngi sàpp di ko xar asamaan juróomeel malaaka yaa ngi sàpp di ko xar juróom ngi sàpp ko xaar juróom ñaareel malaaka yaa ngi sàpp di ko xaar wala xam ba jëm xaras nag jëm ba fa soob yàlla dem jël jëmmam bi seeyal ko ci jëmma yàlla di nga xam ne Muhammad nekk yàlla nekk foofu nag fala fanaagu nekk nga xam ne mu mujj na say ba jeex takk ci jëm yàlla ji benn jëmm taxaw ñaari jëm amatul bam soobee suñu borom la ko delloo mu nekkaat jëmm ci la ko jox julli juróom am na leneen lu mu ko jox nag yonent bi nee na kooku duma ko jox ñëpp ku mel ni Mawlana Cheikh Sidi Ahmad dana mos na si ndax juróom-ñaari jëw xër yi sëñ bi wax ne mos naa si te ba ma see mos yàgg na siru yooyu min asaari Muhammad seen moom kenn du ma jëwër jëwër boo ko tafsiree ci lu lastu bi mooy wurus waaye namuñ ci wurus dafa am benn secret bu ñu tuddee jëwër jëwërutu siri jëwërutu xeefaan ak jaw eh, ak jawar boo xam ne xay bi min kuróobi laay xay bi min kuróobi laay nag la alaay man da mos naa si te ba ma see mos yàgg la ah? koy natt leeg benn maqaamu wëllu ci lawlu yaawu laay koo ko natt leen sëñ bi ko ndax bokkuñ demukaay asmaawullaahi la mos wasifaati ni yàlla tudd ak ni yàlla mel loolu la sëñ xaman ndaw xam te loolu moo gën ci xam-xam yi laxdari xam-xam la lawal xam-xam la maqaama xam-xam la risaala xam-xam la alquran xam-xam la tawraat xam-xam la linjiil xam-xam la waaye xam-xam bi ba gën a màgg gën a baax gën a walaabal moom la sëñ xaman ndaw xam mooy asmaawullaahi wasifaati ca laaw la ko dale walaaw sirfun lisaati zëxnuha xajibun jaami asmaak bu xamoon foofu rek doy na suñu xamante moo ñu xamal lan mooy laaxu nee na tur woowu di allaawu leer yi si ne ak tajliyaat yi ak secret yi boole na mboolem tur yàlla yi bépp tur yàlla boo mën a gis la ca nekk sa mbuur wala secret mu ci allaawu te li nekk ci allaawu new ci benn tur Mawlana Cheikh Mouhamadou Mountakha mu ngi jeexal ci àllaaw nee na koo xam ne sa bopp jaaxal na la xamoo foo jën te bëgg nga sa aajo faju ñëwal si Sidi Mountakha mu ne la am yóbbu Sidi Mountakha doomu alaa yowoon ndaw li jaabam kenn weeratu sëñ bi xam li sifa yëpp sifatu jalaal yi ak sifatu kamaal yi ak sifatu jalaal yi ak sifatu kamaal yi ak sifatu jamaal ma expliqué la ko rek fu gàtt si kul kuli allahumma maalikul mulki tuuti mulka watansiyo mulka wato xisdu wato zilu bi yadikal innaka qadir dafa am ñaari tur yàlla xam ci lay falee si lay foolee beneen bi mooy moens kooku mooy sifatu jamaal bi ko ku falul yàlla si leen la fale ku am daraja wala tedd nga yàlla foofu la la ko joxee waaye am na beneen sifa bu garaaw nag mooy musil président bu folleeku yooru dem boobu la jël yoo xam ah est-ce que li ñu ko ñaanal suñu président mu musil bi kon suñu woon yooyu la xam tur yuy lakk yàq la ko yàlla xamal ak melo yooyu abdun faqiirun sali abdun kaana za wajalin xaral baaba yaa moxees alaa ma doy ne fëgg naa buntu yàlla am na ñoo xam ne bu ñu ñaan yàlla kenn xam turi jinne yi ñuy jël di ko ñaan yàlla di fonto nii turi rawaan yi bàyyi leen turi rawaan yi waaye seen maam boo sa jege rawaan xamul luy rawaan sax abdun salilun faqirun kaana za wajden xarxara baaba fëgg na bunt bi yaa moens yaddoxoo ko mu ngi lay ñaan bi sam ci baatu allah tëlluuhaa dana ko topp kawaakii buhaa yeneen tur yàlla yi soo tut tut suñu wane kenn du moom waaye waaye suñu wan du jant du ñaan du ñaan si jant jant lumière bi suñu wanoo dina toog di si ñaan dimension bi toll loolu pour réer moo koy def mais samsu lim jënd moom mooy allahu wamit kawaakib bi sëñ bi du ñaan si biddiw yi ndax biddiw yi mayuñ dara li muy ñaan si yeneen tur yàlla yi lay ñaan doo bëgg ngeen xam ko bu baax a baax a baax xam ne ki ngeen am réeru dafa ko li sëñ Cheikh Mouhamadou euh, Basir wax ne sëñ bi du lëqee maanaam du ku am sëriñ am na sëriñ sëriñ mooy Amadou Saïd ci tariqatu Cheikh na Tidiane waaye sëriñ bi adressé boppam ne mooy sëriñam mooy bàyyi ndax Omar la wax bi mu waxee si téere ba lu wax nasamoo abdun dahifun jaani al murtaji maxfiratal manaani umru la ci teg najlu sayqi xali alxaafis al mufassiri sakki kooku la adresse na mooy sëriñam bàyyam bi ko jur mooy xal yu daawa toog moo ko may wirde salaatu faati mais suñu ko mën a li mu am bàyyam amut ko laa xar wa du lu yéeme ndax yonent bi sidna Muhammad ndax lim am Abdullah bi ko jur am na ko amu ko sëñ Muntaxa nag ne nit ba ngay baax baax ba doo am bàyyi Isa amul bàyyi mais mbaax taxul mu ñàkk bàyyi dogalu suñu borom la suñu Omar Ndong am na bàyyi mais moo ëpp bàyyi dimension ndax lim dajeeg ak li bàyyam dajeeg bokk bàyyam mokkal na alquran tafsir na alquran kilifa woon ci tariqa Cheikh Tidiane waaye suñu Omar Ndao dimension dafa passé tariqa ndax tariqa tënkul ko te amoon na isni pour doxal tariqa kanaa moo gàntal rek waaye bu ko neexoon doxal tariqa mais moo gàntal doyloo tariqa Cheikh na Tidiane radiallahu anhu mi nga xam ne surtout yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mujj wax ne amini bi hubbihi malika bariyatin wahab li muraadi fi cheikh ya ahmad mais bu ko neexoon ba tariqa boppam te yàlla dina ko gërëm te dana ci mën a xeggale ay jaam seen borom mais jeex gim jeex sidina muhammad tax na mu des ci tariqa sëtam bu tedd boobu mais amul ndigal pour pour am tariqa liñ jot nii muy asmaawulaay wa sifaat yi lu ko ëpp doole amul ci àdduna bi benn sëriñ mosu ko jot min la dul aadama ilaa nafti suur amul kenn ku mën sa jot li alaay xuma ndaw jot jot benn taalibe Cheikh Ma Tidiane lu mu sës sës si Ma Tidiane li alaay xuma ndaw jot nàndale si salaatu faatee mënu ko nàndale li alaay mën a mënoon naa ne si ismu laay heure sa mënu ko naan ndax sëñ bi def sa am isnu xaas ndax sa sëriñ mën na la may isnu mais am na koo xam ne moo ko ëpp doole isnu muy sii di wujjut sëñ bi nag amul ndigalal kenn ku dul ndigalu sii di wujjut sallallahu alayhi wa te ndigal loolu mooy gën a wér ci ndigal yonent bi ndigal a kan ndigalu suñu borom jeex na day xam kii dañ mooy kan jurul xaam jël xaas la fa yàlla xam xam nga mooy la mooy ku réere yàlla sa yomoon a ko xaas xam nga mooy kan mooy ku xam yàlla ku xam yàlla sa yomoon daw jurlu ko moo xam jigéen la moo xam góor la moo xam sën la moo xam sa sadaal la ba abadan amul li fàccee ci moom te du nekk wali moo tax ku ci gis njabootu alaay ma doon tere la sura faaw fekkee dañ koy wax mooy njabootu alaay ma doon dëggantaan nag waaw ndax xilaafu rasulullaay ku ko donn waaye wax dëgg yàlla yaay sërif sërif yi nii dëgg la deretu yonent bi la askanu yonent bi la mais doonuñu ma xaamam ndax soobu suñ borom mais razaqnaa laahu mulaqaati nabi bi joodi wa fadlihi mustawi bi fi kulli laxsatin min al laxsaat wa kulli xaalatin min al xaalaat kooku seen maam la alaay xama daw wasalaamualeykum wa rahmatullah